Morgen, libérez Morgen. Hassan Dramé, libérez Hassan Dramé. Ibrahim Djendou. Abdoulaye Ndiaye. Babacar Ndaw. Pape Ousmane Seck. Madike Diop. Abdou Silla. Bouna Ba. Yaya Sise Cheikh Omar Diagne Abdul Karim Gueye Papito Kara Ousmane Diagne Abdoulaziz Niang Abdoulaye Dione Ndongo Diop Ousmane Diatta Jata, Keita Diop Taïf Pape Alé Massa Sundaw ak ñi fi jàll yëpp ci ay sénégalais wax nañu wax ji mu wax wax ci ponk dama juste mais vraiment standing ovation à la cour des comptes ak magistrat yi fa ak def gaañu ñun nga war a doon bouclier wu cour des comptes ñi fa nekk ñuy ay citoyens yu digne yu def liggéey bu am solo bii li may def rek mooy damay bamtu ci wolof exigence yi nga xamante ni mu Ndiaye Cissé posé na ko en français muy ay exigence yu forte yi nga xamante ni fii la satisfaire ko suñu xeex bii day wéy mooy premièrement la démission ñëpp ñi nga xamante ni la nous démettre de leurs fonctions le plus vite Et amul ay fait ah. ministre ba ci ak démettre de ses fonctions c'est une exigence du peuple sénégalais deuxième point, bi moy nañu fait ñu loubal xaliss bi nga ni dem ci Covid que ñu gox ko li mu gën a gaaw loolu tamit beneen exigence la bu forte bu peuple sénégalais sunuy milliards du reesee noonu beneen bi nag mooy Cour de comptes def na ko ci rapport am mooy l'ouverture d'une information judiciaire bu dee opposition politique la bu dee activiste la bu dee ñun sénégalais la yi nga xamante ni léeg-léeg ginaar rek la ñu justice bi day daal di gaaw. Ouais, vous dee ñoom la justice bi di layam layami comme ni ko Dame donc ouverture de douze informations judiciaires au moins et enfin libérer du temps. voilà et pour terminer gars yi loolu pour que peuple bi mu xam ni war koy il faut pas que nous ñu def ko ci biir il faut que ça se passe en toute transparence pour loolu il faut que mu comité bi nga xamante ni ñenn ñi dinañ fa toogal askan wi pour que ñu saytu est-ce que ñu ngi def li war est-ce que nangu ngeen ko jàngeen jëf loolu laa indi woon ci ay ponk lii premier acte la déglu leen ci fan yi di ñëw incha allah comment voilà incha allah ci fan yi di ñëw dinañ defaat conférence de presse pour wax leen xeex bi fu mu jëm. fii ak exigence yi état bi satisfaire ko bu soobee yàlla duñ ko bàyyi fii ak libéré wuñu prisonniers yi duñ ko bàyyi.